bu ñu sante suñu borom julli si yonantam bu tedd bi ñu ngi rappel lu ndaje bi tey fii si turu Latir Ndiaye préfet du département de Linguère fekkee fii vraiment président APD di Maram Sall génnee si li ko yàlla jëgal vraiment si weer bu tedd bi valeur u 42 ceeb joxe ko population jigéen yi surtout population Mbëlëke ak population Daara Jolof kon nag ñu koy rafetlu di kontaan si geste bi di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla gën a jàppale yàlla na ko yàlla vraiment fulal lépp li mu doon sumb yàlla eggali ko te vraiment te te lii du guleet ñuy ñëw fi di ko fekkee muy jàppale population defoon na ni si Covid 19 bi mu ngi ko defaat li si weeru koor bi chaque année mu ngi koy def vraiment ñu ngi ko si félicité di ko remercier di ko ñaanal yàlla. dañuy wax ne tey euh, li ñu fi dajale mooy cérémonie de remise de dons. ben ndimbal boo xam le président Maram Sall moko jaglel askanu daara ak askanu mbëllaxe mu nek ci 40 tonnes ñeen fukki tonnes ciép bo xamne buñ ko xayma ëpp na euh fukki million don bobu nak président Maram Sall ci moyen bopam la ko défé te lu mu yàgg def la à chaque fois bu Ramadan jotee dana jël ci alalam jàppale ko askan yi nga xamne ne ñoo gën a doole Maram Sall loolu lañ ko xamé d'habitude dañ koy wax Maram Sall la social parce que bu dee ci événement yi da ciy joxe bu ci bi Covid bi ñëwee dañ cee gis aussi loxoom tay aussi biñu gisé Ramadan bi da cey duggal encore loxom ñukay waxat aussi maram la joon jooni parce que timit fu soxla taxawé da na ci duggal loxom ci nu gëna gaawé koku nak euh muy le président Maram Sall dañ koy ñaanal gis na dal lepp lu am jollof la ko indi jollof lay jappalé surtout que ñi nga xamné ne dañoo néew doole en tout cas don bi nimbal li daf ko jagleel ñi nga xamné ñoy gën néew di doolé xoolu ci nak kii dafa ànd ak moom kii àndut moom amu ci xaj amu ci seen kon daal dañu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal daal di wax ne lii nga xam ne moom la def dana mën a tax ñi nga xam ne ñoo nekk ay autorité ci dëkk bi aussi di ko toppandoo di def ni mel ni moom suñ ko defee Jolof dina mën a dem kanam waaw la président Maram Sall dafa yàgg ànd ak euh, le président Macky Sall di ko jàppale ci dooleem jàppale na ko

def nañ li tax ñu war koo def parce que le président Maram Sall tey ñëpp cëru nañ ba mu def moom te moom li muy demee lépp par ses propres moyens la kon dañuy jàpp ne candidature boobu c'est une candidature obligatoire et même nécessaire. maa ngi leen di nuyu euh, di kontaan ci lii ñu dajale tey ndaxte lii nii ñu indi fi tey mooy euh, ndimbal li nga xam ne Maram Sall da koy dimbalee askan wi. Euh, année at mu jot da koy def muy euh, ñeent fukki tonu ceeb yoo xamante ne nii da koy joxe ñun nag moom dañ cee gis suñ bopp bu baax ndaxte ceeb bi def ñoo wàññil ay dépenses yu bari ku ne xam ne ne weeru koor dafa bëri ay dépenses kon ni nga koy sant di ko gërëm di ko ñaanal lii mu sumbur li mu mën ren déwén yàlla na mën lu ko ëpp ci darajey sang bi sallallahu alayhi te di leen wax rek ne maaram lii du du guleet du guleet def na ko fu ne saa yu suñu bët xonqee rek dinañ ko gis buñ gestoo moom la ñuy njëkk a gis kon nag ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal moo xam li mu bëgg ci politique yàlla na ko ko yàlla defal di sant ñëpp di gërëm ñëpp